xaban taxawaay bi presse bi am jaaree ko ci kàpp di kuréel gi ëmb ñuy yëngu ci tasuma xibaar jëmale ko ci xeex wàllum xatale gi ci métier bi naka noonu itam jàppee gi ak yeneen ak yeneen bokk na ci lu gën a fës ci xëtu yi ñoom ñëpp daal nañuy àndandoo ni ji tey xëyee ab mbind di éditorial liñ ci xamle bokk na ci jàmmarloo ko njuumal yi balaa mu ñuy jeexal ñun ñëpp loole moo war a doon taxawaayu bépp taskatu xibaar bi nga xamante ni dëgg rek moo la ñor te itam ak moom sa bopp bi nga xamante ne moom la ñu mooñalek liggéey tasuma xibaar ci biir réew mi loolee moo war doon taxawaayu bépp taskatu xibaar ak li la ci mënti fekk képp koo xamante ni situation bu taskatu xibaar yi di dund jamono ji tembe jàpp nga ni ni mel taskatu xibaar yi daata ñuy xëy ni ki tey koy siiwala ci jojule jamono Le Soleil mu ngi ñëwaat ci médiation di maanaam tànku jàmm yu dirigeant africain yi rawat na président Macky Sall di dox jamono jile tembe ci biir la jaamaarloo muy dox ci diggante Russie ak Ukraine daat nay rafetlu bu baax a baax doxalin gi bi mu jàppee ab approche d'équilibre mi bàyyeekoo ci ay réewu Afrika loolee waral yéene kayu laas nañu Poutine daat nay rafetlu bu baax a baax doxalinu président Macky Sall ak yi àndandoom ci wàllum yoon ak yoonal les échos daat nay xëy di xam ñu tere avocat a nay jubbanti bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi ordre des ci kaw table ak doxalinu nguur gi Vox Populi déggal xibaar bi nañu ordre des avocats xañ doomi aadama ak ak yelleefam ak itam wàllum dem ak dikkam dañ ko war a teg ci lu leer di maanaam le respect des règles loolee waral ñuy xamle ci ab bataaxal ne dañoo war a ci ni mu gën a ay gàllankoor yu tax bi ab citoyen mën jokkook yi avocat lu jëm ci dialogue politique bi yéeni kaay Le Quotidien mu ngi xamle ni ab déggoo bu njëkk daal na ci am di maanaam ab consensus jëmale ko ci doxalin gi ci wàllum parrainage yi bokk na ci li ci lañ doon laaj bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi ndar keepe ko Walfadjri Quotidien mi xam le ni ginnaaw jàmmaarloo yu métti yuñ fi nemmeekoon ci Sénégal ci mars ak itam yi fi jotoon a xew ci yàggu dara ci diggante benn fan jàpp ñaari fan ci weerum juin débat bi nag jamono ji tembe daal nañ koy jubali ci cour pénal international ndaxam mbir mi toll na ci fenn fii jëmale ko ci jéggi dayo ba tax ñu war ko yóbbu ci kanam cour pénal international ab laaj la bi nga xamante ne suñu naataango Walfadjri ñoom ko daal di samp Sidiki Kaba mi jóoriñ bu ñu dénk wàllum forces armées di xam le ni mbir mi daal ay caaxaan jàngeen jëf la dénonciation par les journalistes des atteintes à la liberté de la presse, la médiation africaine dans le conflit russo-ukrainien et d'autres sujets sont au menu des quotidiens sénégalais parus ce lundi. Les journaux se font écho d'un éditorial de la coordination des associations de presse CAP intitulé Face aux monstres, vivre ou périr pour dénoncer une batterie de mesures qui sape la liberté de presse et même d'expression. Quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites qui tiennent. L'heure du choix a sonné pour tous les journalistes sénégalais qui tiennent encore à leur dignité et qui pensent avec raison que leur indépendance éditoriale est incompatible avec la compromission, quoi qu'ils doivent leur en coûter, lit-on dans cet édito. Ce choix doit être celui de tous ceux qui estiment que la situation actuelle de la presse n'est plus supportable, ceux qui ont l'intime conviction de vivre dans un environnement anormal, ceux qui reconnaissent avec humilité que les sacro-saintes libertés constitutionnelles qui sont la boussole de notre métier sont désormais par le bon vieux monstre de nos malheurs, cela est une exergue la médiation africaine dans le conflit russo-ukrainien et affiche à la une Poutine ouvert au dialogue. Le président russe se félicite de l'approche équilibrée des pays africains, indique le journal. Selon l'AS, Poutine apprécie la démarche de Macky Sall et compagnie. Le même journal signale que face à l'interdiction faite aux avocats de Ousmane Sonko d'accéder au domicile de leurs clients, le bâtonnier recadre l'État. L'ordre des avocats tape du la table, des droits et libertés doivent se faire dans le respect des règles et appellent à la levée immédiate de tout obstacle de nature à entraver le libre exercice du ministère de l'avocat et ou le libre exercice de tout citoyen qui en éprouve le besoin de recouvrir à un avocat. Dans le cadre du dialogue politique, le quotidien Le Quotidien signale qu'un premier consensus a été noté sur la modification du parrainage. C'est un pas de gagné. Le parrainage tel que connu au Sénégal ne sera plus une réalité au sortir du dialogue politique avec les forces vives de la nation. Un consensus a été trouvé désormais. Chaque candidat aura besoin de du fichier lui renseigne qu'après les émeutes de mars 2021 et surtout des 1er et 2 juin qui ont fait au total plus d'une quarantaine de morts, le débat tourne sur la capacité

Ousmane Sonko renseigne toujours Walfadjri Quotidien. Bonne et agréable lecture à toutes et à tous.